waaw man dama bëggoon am ay leeral ay leeral laa bëggoon am par rapport au cinquième point cinquième point si suñu programme euh, candidat Euh, par rapport à la gestion euh, du stade euh, Demba Diop rénovation ak gestion euh, stade Demba Diop par la donc avec, en partenariat bien sûr en partenariat donc avec le ministère des Sports donc gestion boobu noonu laa bëggoon am ay leeral par rapport ak la commune avec les habitants de la commune exactement par rapport ak gestion boobu noonu si à toujours tamit euh, bu fekkee ni combat am na combat de lutte am na ñu organiser ko fii boo leen seetloo souvent ci biir SICAP bi la ñuy ñëw mais lan mooy retombée bi absolument rien léegi nag il faudra que ñu wax ak gestionnaire yi nga xam ne ministère des sports à chaque fois bu ñu nee combat am na am na quote-part bu war a ñëw bu war a ñëw euh, ci commune bi bu dee match am na war na am quote part parce que boo demee boo nekkee ci ci fédération bi da ngay gis chaque fois dañu wax quote partu équipe mais quote partu commune bi amul léegi quote part boobu la ñu bëgg ñu ñëw di ko reverser directement au niveau de la commune donc bon en principe moom mooy la la première des questions la deuxième artiste bu nekk Maodo mi ngi lay wax ni la déjà il faut que ñu am reconnaissance reconnaissance bi mooy déjà il faut que nga inscrire Parce que s'il y a une inscription au niveau de la commune, on aura une cartographie de la commune, mais on aura le répertoire des, des artistes qui se trouvent au, niveau, au sein de la commune de Sicap Liberté. Donc ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile de regrouper ces artistes à travers des coopératives, à travers des communions. Et comme on est avec Madame le ministre en ce qui concerne une entreprise sociale et solidaire, ce sera beaucoup plus facile que nous ñu mën a exposer seen art ñu mën a manifester wu à travers la nuit des arts à travers des manifestations et des cadres de concertation pour accompagne ces personnes en situation de handicap déjà da ngay xool ne nit kii mi ngi ci fauteuil soxla na chaise fauteuil roulant bu fekkee ni mairie bi da koy jël wala ñu jël également la mutualisation mutuelle wu 5000 personnes boobu ñuy wax mën nañ ne kii kat dañuy dafa nekk situation handicap war nañ ko utal tey war nañ ko jàppale pour mu faju mais mairie bi moom mooy jël en charge loolu wala mën na ne kat man je prends 50 pour cent de ceci donc loolu moom moo nekk dans un premier temps ci ci réponse par rapport à la euh, aux personnes à situation de handicap mais beneen bi il y a ce qu'on la responsabilité sociétale des entreprises RSE entreprise bu nekk ci commune bi am na loo war a fay c'est comme ni ñuy gisee am na possibilité en partenariat ma mairie bi ñëw taxaw ne la kat yow redevance yi nga ma war a jox benn soo ma waroon jox 100 francs jox ma 75 mais 25 yi nga jëlal ma kenn ci biir quartier bi moom mu jiy liggéey bu ko defee 25 boobu dina revenir à ces personnes et ce sera beaucoup plus facile kooku dafay liggéey entreprise dafa fa nekk bu doon fay 100 francs dina mën a fay 75 francs donc loolu mooy responsabilité sociétale et ensuite mënoo nekk ci gox bi war nga am loo fiy jëriñ ñun ñoo koy jënd ñun yaa ngi def sa commerce yaa ngi gis par exemple Auchan et autres dans les certaines structures dans certains quartiers dañuy jël ay nit yu fa dëkk donc am na quota bu nga xam ni am na c'est comme euh, BRT bi BRT bi mu ngi jaar ci commune yi donc am na possibilité à ce que les jeunes ñoom ñu inscrire pour dem jël jël foofu ay post parce que liggéey fa BRT bi noonu lay demee également dans toute chose également dañuy jël entreprise boobu ce qu'on appelle RSE fii la implanté wu war nañu jël ay jeunes jeunes yooyu ci commune bi lañ bokk jeunes yooyu maire bi dina leen accompagner pour que ñu mën a dugg facilement ci dans ces entreprises merci ñun dañuy wax coopération décentralisée et les entreprises également dafay joxe un peu le contexte permettant aux jeunes ñu créer la créativité de l'emploi mais créativité à travers une institution forte parce que nous sommes dans un état où la reconnaissance nécessite une importance capitale pour l'octroi de marché loolu la ñu soxla parce que mënuloo taxaw ne am naa projet am naa entreprise te amuloo kayit financement yi ñuy wax les organisations yi ñuy wax ni yëpp de financement dañu lay laaj yow lan nga am est-ce que GIE nga am est-ce que SARL nga am est-ce que SURL nga am est-ce que SA la donc ensuite lan nga exercer moom moo doon wax ni souvent bu fekkee ne da ngay jaay dañ lay wax di ngay soxla ñu ne la léegi kan moo le parrainé est-ce que tu as eu à faire des réalisations la mairie a, aura un cabinet qui va faciliter la tâche léegi nii la reconnaissance viendra peut-être à travers la mairie à travers une documentation qui sera fournie auprès de ces entreprises dafay renforcer un peu les habitants qui ont ou les jeunes qui ont leurs petites entreprises donc en gros ce sont des facilités pour que les jeunes puissent s'immiscer pour que les jeunes puissent dire que nous avons certes des projet mais nous devons faire reconnaître nos entreprises et il y a des institutions. Si vous allez à la chambre de commerce, vous avez la possibilité d'avoir toute la documentation. Et pour Nianini des GIE, on vous dit par exemple, c'est 1500 francs le document, vous allez pouvoir au moins consulter. Vous avez SARL, orientation. Et là, on vous donne du crédit. Parce que nit qui quand même, bon soleil, mënuloo sol tubéy bu rafet pantalon bu rafet jël chemise chemise bu xotteeku teg ko non danañ ne waaw li ci suuf rafet na waaye mais bu lépp àndee dinañ ne ok d'accord au moins l'entreprise nous a permis de pouvoir dire que ni c'est une personne sérieuse et teg na benn étude de projet appropriée mën nañu taxaw am yaakaar ni kii kat mën nañ ko financer wala il a la possibilité d'être financé à travers le soutien de la mairie merci bien